xamante ne magistrat moo ko jël di juge ñu war ko appliquer état lànk ne loolu duñ ko appliquer. waaw mais Mass euh, analyse bi du sori. Mhm. parce que depuis 2012 dañu nekk ci benn état boo xamante ni lépp dafa ànd ak injustice. ok kenn mënu ko dindi parce que may wax dafa am fu mu sukkandiku. fan la sukkandiku. boo demee. ci réew yi am démocratie amul benn président ci àdduna bi bu mës taxaw publiquement ne am na dossier yoo xamante ni man maa ci teg sama conc amul fenn te dégg nga ko publiquement Macky Sall wax ko sénégalais yi loolu moo lay won ne justice am na Sénégal parce que am na ay jeunes yu mel ne yow yu juddoo ci réew mi jàng ci réew mi yu mel ne saaba si fay yu taxaw osé wane ne lii mooy dëgg lii la ñu yàlla sant te moom la ñuy def mais am na ñoo xamante ni seen dëgg yëpp seen poos la mm-hmm. parce que seen poos rek la ñuy supporter wuñu li nga xamante ni moom la sénégalais yi di laaj ci sistis mm-hmm. moo waral ñuy défier justice te problème Ousmane Sonko dama bëgg rek sénégalais yi dellu si waat quoi parce que man bu ñu demee ci justice yàgg nañ ñoo néewal doole ba ci man mii toog ba ci caat mii mhm. ba ci yow mii dañuy néewal doole saa su ne mhm. parce que say moroom a ngi ci dëkk bi di toog ci plateau yi comme yow mais am na loo xamante ni sañuñu koo laaj sañuñu ko wax mhm. sénégalais yu bari fi mu toll nii dañ leen a tënk ci làmmiñ parce que am na loo xam ne boo ko waxee ñu dajj sa buntu yanu la yóbbu. ci say kanamu waajur. Mm-hmm. mu bëgg dalal xelu sénégalais yi ci lenn mooy problème mu Ousmane Sonko li ma bëgg dalale seen xel mooy dañu nekk nguur goo xamante ni lépp lu ñu bëgg a def dinañ ko def par force. ah waaw par nga wax. am na téere amul sax jàngat. Mhm. dafa am téere parce que li nga li liñ la nàmpatal ngay xëy di ko gis bis bu ne xoolal loolu téere la Karim Wade jaar na fi sénégalais yi taxaw ne du fi amee. Mhm. sañu ñu ko woo lañ doon wax ñu woo ko sañu ñu koo juger ñu juger ko sañu ñu koo tëj ñu tëj ko ba pare exiler ko. absolument Khalifa ñëw ñëpp taxaw taxawu Dakar ah. Mhm. sañu ñu ko woo ñu woo ko sañu ñu ko tëj ñu tëj ko sañu ñu koo jugé lu ne wax nañ ko fi loolu yëpp jaar na fi jàll. Mhm. Assane Diouf mii di wax ak yow sañu ñu koo jàpp sañu ñoo def nangam ñu sos terroriste jële ma Amérique indi ma Sénégal. Mhm. kon affaire Ousmane Sonko ñi nga xamante ni ñoo ci nekk di pexe kenn mënu leen a tey eggale seen pexe. ah bon. mënul ah, Assane su ma lay dëgg day man ni kon jarul xeex bi gars yi di xeex di dem DG di laaj ay fiches de parrainage dafa mën ni loolu c'est peine perdue. parce que d'accord naa xeex. Mm-hmm. maas man xeex rek laay def yow xam nga fi ma jël fi ma mm-hmm. juddoo xeex rek laay def mais ci kaw xeex boobu may xeex. Mm-hmm. man damay xeex ak principe. Mhm. man duma xeex pour buzz. Mhm. du ma xeex tamit pour ñu ne eh gaa yaa ngi xeex gaa yaa ngi xeex. Mhm. moo waral jamono yii yëpp déggoo ma am naa Facebook am naa TikTok am naa yëpp maa ci njëkk. absolument déggoo ma fenn parce que dañu dem ba affaire bi buzz lañ ko def te du buzz gis nga xeexal sa réew saa yi pas-pas la mooy Pastef gi soon ko doon woote. bu Ousmane toogee am sañ-sañu ne bàyyee naa sama bopp sénégalais yi Macky Sall sañu la def nangam Macky Sall sañu la parce que dafa xam ne Macky Sall fi mu toog sañ-sañ bi mu am sénégalais yi ñoo ko jox. absolument léegi sañ-sañ boobu nag ñun ëllëgee ñu continuer di wane ne sañ-sañ bi diw yor ñun ñoo ko jox ñun dañu continuer jël lépp def ko ci buzz maanaam xam nga man la man la man la comme li ma la wax léegi. li ñu fi ñu jaarale Khalifa Sall jaarale fa Karim Wade jaarale fa Assane Diouf jaarale fa Thiat muy jaarale fa Pa Assane jaarale la fa yow mais mënuñoo wax ba duñu fa jaarale Ousmane Sonko man maa la wax loolu parce que loolu la ñuy pexe mais mais li nga wax ni non non antu aussi non day antu est que dina antu day xam nga lu tax muy antu parce que Sénégal li ma la wax maas moom la ñuy dund dundatuñu pas-pas buzz ak pas-pas du benn man bi may xeex ma toog Amérique am naa ay waajur dañuy yëkkati seen téléphone ne boo moytuwul nangam bi nangam mën na la cee fekk may leen naa dee ba pare ne leen jël naa sama bakkan bii jox ko àddiyey sénégalais yi war nga koo seetaan pas Assane mii da ko seetaan na ko. absolument dama daan wax ak moom tout le temps. yaa ngi dégg léegi pas-pas boobu bu ñu demee ba mu nekk buzz bi TikTok Facebook diw moo am temps de view yee pas-pas bi nekkatu fa. Mm-hmm. te problème bi mooy ñii li ñu bëgg man maa la ko wax dama bëgg sénégalais yi ñu yeewu nag li may wax ñu bari du leen neex mais Mass Ousmane Sonko lu ñu mënti def Macky sàll li mu bëggoon mooy du dem élection te du dem élection. Ah, loolu révélation la nag. parce que man maa la ko wax. Ah, bu ñu demee ba yoon jox ko dëgg. non dama lay garantil bu ko yoon. joxee dëgg nga toog loolu aussi day naax sax. bu fekkee ne yow yoon dafa jox dëgg Assane Diouf. Mhm. ki nga xamante ni moom mooy signé décret yi nga xamante ni ñu yor yoon fa ñu toog moo leen fa teg mu taxaw jàkkaarlook sénégalais yëpp ne am na dossier yoo xam ne maa ci teg sama conc mais dossier Ousmane Sonko tamit moo ci teg dooleem. nit ñi dañu war a yeewu maas. ok affaire yi nekkatul ay caaxaan. li may wax nii man Ousmane Sonko sama xol la sax. absolument parce que man Sénégal moo sax sama xol. te li tax usmaan Sonko sox sama xol du personne Ousmane Sonko du usmaan Sonko ak jëmmam. Mhm. mais sax bi mu sax ci xolu sénégalais moo tax mu sax sama xol. ok kafe ko caaxaanuma ko. léegi nag bu ñu demee ba toll ci réew moo xamante ni yow wóor na la ne fii nga jëm. am na ñoo xamante ni jaral na leen lu lee doo fa egg yooyu da ngay xool yeneen yoon. ok yeneen yoon yi mooy suñu yoon ci li justice di def benn justice mooy taxaw Sénégal muy population bu Sénégal. askan bi waaw askan bi. te xoolal seen tribunal mu ngi ñëw le vingt cinq février deux mille vingt quatre. Hmm. bu boobaa ñoom ñooy def justice bi gën a dëgër. bu ñu bëggee Ousmane Sonko jóge ci li mu nekk bis boobu la mais lii ñuy def nii yëpp du mujj fenn coow lu bari kese lay indi moo tax man kenn dégguma ci man damay xeex ak énergie damay xeex pour teg ci sama bakkan damay xeex comme sëriñ bi ma yaakaar xaadim rasul ni mu xeexe woon teg ci bakkanam damay xeex comme Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li ko taxoon mu jël jaasi ji dem xare ba mais li nga wax ni ça va parce que ñooñu laa gëm ça va pas plaire aux partisans de Ousmane Sonko non non non parce mais dëgg la dëgg la ak ñoom xam a pexe du bokk ci élection yi ak lu mën a yoon décider yéen waa Pastef man la Assane Diouf en 2021 man maa njëkk kër Ousmane Sonko man maa taxaw woote ci benn télé Pa Assane mi xam na ne leen yéen sénégalais yëpp génn leen ñu dagg émission bi ne kii day woote appel à l'instruction man lañu ñu ubbi woon sama jë tuur sama deret man maay wax ak yéen xoolal par force di ngeen am candidat da ngeen ne amu leen plan A amu leen plan B par force da ngeen di am plan B plan ba Z. ba Y par force dama leen wax dëgg ah parce que ki lay pexeel yor jaasi tiim say tànk ëpp la doole xam mbedd yépp xam fépp foo mën a jaar pour mu gor la xolal da nga koy bàyyee yoon yépp wut beneen yoon boo xamante ni xolal da koy wóor ne moom munu faa jaarale jaasi munu faa jaarale buum munu faa jaarale dara te dañoo xeex dañu may mooma daaneel maas dañoo xeex xeex bi commencé wul ci Ousmane Sonko dañu xeex depuis 2013 pour jeexal nguuru Macky Sall ma bëgg ñu xam ne xeex bi ñuy xeex ñun pour jeexal nguuru Macky Sall ñetti weer moo ci des moo tax may leen justice day am par force pour sénégalais yi le 25 février 2024 incha allah. ok euh, jërëjëf Assane yaakaar naa ne message bi àgg naa moo bàyyi Pa Assane Seck mu mu mu nuyoo après mu ñëw ci.